ngeen di abonné fii ci Tawfekh Production ngeen mën jot mboolem vidéo boo xam ne dugal nañ ko ngir mën a xam li nga xam ne mooy. ñu jox kàddu gi alxaaji Serigne Saliou Guèye Badar. bismillahi rahmaani rahim naa bala ñuy sori ci kàddu yi li ñu njëkk a def mooy ñaanal koo xam ni jàmbaar la woon ci alxaaji sëriñ géey foo ko mos gis gis ko fa mu bëggoon ko lool fonkoon ko lool mu Serigne Dame Lo. bis bii bañ ko dana def ñun bañ juddoo ba tey fi nañ ko daan fekk mu ci ànd sëriñ bi gëmoon ko gëm goo xam ni meloon ci moom bëgg ko bëgg koo xam ni mosuma gis ku mel ni moom am na bis ma waxtaan banaa ko daam yo ba sëñ bi nekk daawoo sol mu ne ma man kilifa du ma nekk mu di yor mbaxana ngan bi fi diiru alal sëñ bi di fi nekk musu sol mbaxana bi fi nekk la commencé sol ak yeneen ak yeneen ak yeneen ku mel noonu nag bu fi bàyyi ko war na képp ku fi toog nga ñaanal ko ñu teelu ñaan suñu borom yokkay leeram te taas ci barkeem بسم الله الرحمن الرحيم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب mbokk yi ñoo ngi leen nuyu te leen ziyaara di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha moom mi fi tooge jotaab Cheikhul Khadim waaye noonu la ziyaara ki nga xam ni mooy kilifa ak bërëb bi di sëriñ Mor Talla Gueye Badar di ziyaara itam sëriñ Cheikhouna Gueye mi nga xam ni moo fi xalifa alxaaji sëriñ Gueye ak mbooleem kilifa yi nga xam ni nekk nañ ci baas bi gis nañ fi suñu waajur yu bari sëriñ Aliou géy ak kilifa yi nga xam ñu nekk ci baas bi ah, nun nag dañoo bëggoon bala ñuy wax bara na ñu ñuy laaj ci Badar ci cosaanu badar léegi rek ci ngoon kilifa ñëw na fa di ma laaj ci badar te jàpp naa lu bare bare xam na ko ci waaye dañ ma li nga wax tey mosuma ko fee xam nee la sëriñ kay doon wax na naan mbooloo bu ñëwee war nañ leen a wax loo xam ni boo liggéey ñu mën cee jariñoo fii bërëb la boo xam ni bërëb bu sëriñ Tuubaa fonkon la ki sañ ci barab bi ci gàttal rek mi ngi tuddoon sëriñ Habib Guèye ñu gën koo miin ci sëriñ Mayib Guèye sëriñ Mayib moomu nag mel na ni barab bi da ko doon wër ndax sanc na barab yu bari waaye dafay jóge bàyyi ko fa dem sanc beneen barab def na ko Kajoor def na ko Njàmbur def na ko ci barab yu baree bari ba ci barab bii bi mu dikkee fi dafa wax ni fii laa doon seet bu ma fi jógee nañ ma sang ci ndox mi sul ma ci suuf si fii mooy sama mujjug sanc nekk fi di fi jaamu yàlla yu baree bari ci diggante bu mën nañ ñëw waaye ci gàttal rek sëriñ Mayib Guèye moom ku sëriñ Touba fonkoon la sëriñ Touba bind na ko ay leetari leetar yu bari la am na ci bu siiw waaye bari woon na sëriñ Touba daan na ko bind di ko laaj téere wala mu koy laaj téere sàngam fan la mën a nekk. wax nañu sax ñi sëriñ Touba mus naa ñëw ci cumbuleen gi ci benn sarax te sente feeg sëriñ Mayib Guèye sëriñ Touba laajte nii ndax sëriñ Mayib Guèye ñëw na fi ñu ne ko mi ngi ci néeg sàngam foofu la dal sëriñ Touba dem fa ngir ziar ko ba mu demee ñu ko génn mi ngi ci mbedd mi sëriñ Touba taxaw. ngir euh, xool ko ñu ne ko mu ngi nee di dem ànd ak ay taalibeem sëriñ ma sëriñ Tuubaa gis na pënd façon waaye gisu ko sëriñ Tuubaa nag nee na amoon naa yéene topp ko waaye suñ borom moomu aayee topp lu yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam sëriñ Mbayib moomu doomam ju ñu wax soxna Xadi Géey demoon na ci sëriñ Tuubaa di ko ziyaare sëriñ Tuubaa ne ko kuy sa waajur mu ne ko sëriñ Mbayib sëriñ Tuubaa ne ko sa waajur day xama xàmmeewoon naa ko ca xare Badar ba soxna Xari Gueye moo ko nettali Serigne Mor Talla Gueye mu nettali ma ko kon day mel ni tur yi mu doon tuddee barab du asaar ba tey tam Serigne mooy moo waxoon ak njabootam ni leen boo fi bàyyi ko leer gi nekk ci penku bi ni ngeen ko dem toppi muy Serigne Touba moo tax Serigne Omar Gueye jébbalu ci moom Serigne Mor Assa Gueye jébbalu ci moom Serigne Mor Alima Gueye jébbalu ci moom Serigne Moussa Alima Gueye jébbalu ci moom ak Serigne Mamour Dieng ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi bokk ci barab Serigne Omar Gueye moom nag Serigne Touba defaloon ko lu baree bari mu mënoon koo liggéeyal lool sëriñ moo taal mi nettal ma ni ndaw yi nga xam ni ñoo daan yóbbu addiye yi ak ndaw yi nga xam ni ñoo daan wàññi ko dañuy tase lu mu am jox ko sëriñ tubaa nit jógee na fii dem jébbal sëriñ Touba sëriñ Touba ni ko looy wut njébbal xanaa Omar nekkul foofu xam naa kooku xam naa turam xam naa ay sëtam nit tamit amee na fi ay bor yu bari jaaxle ci gàddoo fi leetaram dem ci sëriñ tubaa di fa sàkku ndimbal sëriñ Touba bindaal ko ci leetar bi ni ko demal nga jox ko Omar seen i jàngoroog seen i yëpp moom laa leen mu bari woon mbooloo lool daan liggéey sëriñ Tuubaa mbooloo itam gàmmu Badar gii ñuy def sëriñ Omar gi moo ko sanc fii ci ndigalu sëriñ Tuubaa daan ko def mbooloo mi bu ñu daan daje fii di gàmm bu ñu xëyee danaa nañ xool liggéey bu ñu war a liggéey bu ñu liggéey ba noppi ba bëccëg mu doog leen yeewu ñu dem noonu la nekkee woon sëriñ Mor nettal na ma ni magam mbokkam ñoo soxna xari géey gàmm gi sëriñ Omar mujje gàmm fii dafa xool sëriñ Omar mbooloo mi mu ni lii day mënta yàgg dal maa gis sëriñ Omar ni mbooloo mi demee moom gàmm googu la mujj gàmm fii moom sëriñ a amoon ngërëmal sëriñ Touba lool sëriñ Mor Alima Guèye seedeel na ko ni mbooleem ko sa sa bokk ci tool loo fii ci catuwee sëriñ Omar Guèye ci daraja sëriñ Omar Guèye moomu mooy waajur sëriñ Mor Talla Guèye mi nekk ci biir dib xalifaam yàlla na fi yàgg loolu te wér bu ñëwee itam sëriñ Mor Assa Guèye alxaaji sëriñ Guèye baax na loolu waaye suñu borom day def lépp lu muy def da koy def ay sabab ala sëriñ Guèye fi rek ak ñi ko yar war naa tax mu mel ni mel sëriñ Mor Assa Gueye amul woon dara wutul woon dara bindee na fii ab kaamil dem xumaag jox ko sëriñ Touba maanaam demu gànnaaram itam du benn yoon dem na fay yoon yoon yoon am na boo xam ne daa jóge fi bind kaamil ba noppi daat ni danaa dogu ci yoon wi du ma wax dara lu dul tudd yàlla julli ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam nii la ko defee beeg xumaag jox sëriñ Touba kaamil ba sëriñ Touba bég ndax ku mënoon a bind lool la daal di woo waa kër ga tàngal warga daani warga wii képp ku ci naan nu ko gërëmee Mor Assa Gueye mii taxam ne tey moom laa gënale sëriñ Mor Assa Gueye moomu mooy waajur alxaaji sëriñ Gueye sëriñ Mor Assa moom itam ca gànnaar wax nañ ni benn bis néeg sëriñ Touba doon na fa tàkk mu nekk fa ca pëstéef ba ak dogu ko keroog dafa xëm sëriñ Touba daal di wax ni nañ ko sotti ndox te bu jigéen na ko ñëpp jox ko yére keroog jël nañ ko yére yoo xam kenn xamul lu mu toll sëriñ Mor sa moomu ba sëriñ Touba bàyyi ko dafa jéblu sëriñ Mor Moustapha sëriñ Mor Moustapha ak sëriñ Mor Assa nag wax nañ ni seenub xaritoo ak sëriñ Fàllu mi ñu tuddee bërëb bi ca euh, xumaa ca euh, gànnaar la tàmbale woon ndax alay sëñ Gueye daane nettali fii bay wax ci diggante sëriñ Fallou ak sëriñ Mor Assa Gueye sëriñ Mor Assa Gueye mooy waajur alxaaji sëriñ Gueye sëriñ Mor Assa jéblu ci sëriñ Mor Moustapha sëriñ Mor Moustapha at mi mu ñëw fii boobu la sëriñ Omar Gueye nelaw mu ñëw fii sëriñ Mor Taali moom nettali ni da leen wax ni leen yow ak sëriñ Taïba na ngeen sol ay yére moom sëriñ Mor Assa wax leen ko te ngeen ñëw ziare sëriñ bi biñu njëkkee mu ne ko sama mag ju baax ji di sëriñ Mor Assa ku fonkoon sëriñ Omar Gueye la képp kuñ ko mos a tuddee danaa buñ ko wax Omar nañ koy wax Serigne bokk na ci Serigne Gueye ñànk mi nga xam ne jàngal nañu bari bàyyam Serigne ma Samba Anta Gueye taalibu Serigne Omar Gueye bu mag la woon Serigne moo ni bu leen koy wax Omar di leen koy wax Serigne Gueye moom Serigne Gueye ñànk mi nga xam ne jàng nañu bari bari bokk nañu itam Serigne Badal Thiam xam ne ba mu fi jógee ba yàggul Serigne Morassa moo ne bu leen koy wax Omar bu leen koy wax Omar di leen ko loolu di wane ni mu ko fonke woon Serigne Omar jël doom ji di Serigne Mor Tall itam tuddee ko ko Serigne Morassa Gueye lañ ko tuddee keroog bi ñu dikkee Serigne Mor Assa dafa wax Serigne Mor Moustapha ni ko kii day sama mag yu baax ja ñoom ñaar ñi la fi bàyyi muy sëriñ Omar Gueye ak euh, muy sëriñ moor Talla mii ak sëriñ Taïba mii sëriñ Mour Moustapha dafa wax dafa wax ne leen boo leen jàppee ci seen waajur wii day jàpp ngeen ci man boo leen ko liggéey liggéey boo leen amee ngërëm am am ngeen am ngeen sama ngërëm sëriñ Mour Moustapha daana wax ni sëriñ Mor Assa lu mu wax maa ko wax ndax mos naa di fi jaloog gerte boo ndax moom bu daan bay ba noppi daana yéem ñëpp am na ñoo xam ne daan takkee saret fii ba ngaay ñëw di seet si tool sëriñ Mor Assa bi ren nu mu toll benn bis nag da tool bi dafa réelu ma kontaan daan képp koo xam ne wër nga jal bi sa yaram araam la sawara am koo xam ne nag dafa dem siñ mënu sa nek aw ah, mor asaral moom nag dafa xiir lool moom nee na gerte gam jal ku ko wër sa yaram araam la sawara suñ mor Moussa daan xanaa xamun kooku lu mu wax ko wax loolu di wane loolu suñ moodu suñ moor assa tuddee na doom soxna Jaara Buso tuddee na doom Serigne Touba ndax Serigne Gueye fi nekk Serigne Touba la tuddee Serigne Omar Gueye itam ab taawam Serigne Touba la tuddee mooy mag yi ñoom Serigne Mor Talla Gueye loolu di wane yàgg bëgg guñu yàgg bëgg sëñ Tuubaa yàgg liggéey guñu yàgg liggéey sëñ Tuubaa bañ fa jógee itam sëñ Mortaal moom nettali diggante sëñ fal bi ci ñëwaat moom nettali ni sëñ Fall bi mu ñëwee fii 1946 sëñ Mor Asta nelaw dafa wax ni képp ku toppoon Mor mais toppal Mor mi muy sëñ Mor Alima mu nekk fii sëñ Mor Asta sëñ Fallu dem na ba ci barabam bii taxaw daal di raay bopp ba ba ca tànk daal ni kuy actuel bi lii war na la sëriñ Alaaji sëriñ Dee tam nettali na ni sëriñ Mor sëñ ma sàmma sàmba mbàkke sëñ mu mosuñoo bokk ndab di lekk sëñ fàllu jekki-jekki daal di téye ndab la jug taxaw daal ne kenn ngeen bokkal sëñ morasen ko sëriñ tubaa ndax xam ni loolu yàgg yàgg te boobu sëñ mo sëñ tubaa sëñ fàllu nekk xalifa loolu di wane ne yàgg naa xam ne moom dana nekk xalifa sëñ tubaa sëñ morasen gi kon fii lu bare bare nag dañ lay laaj mel ni kon mbooloo maak yu ni demee waaye ci njëlbeen dafa mel ni booba sëñ Omar sëñ eh, Mor Alima mi fi nekk ak jota muyu ko ko nawet da daa nekk fii noor mu nekk ba ci yàgg mu mujj féete ci yeneen bërëb ñi nga xam ne ñoo fi war a moom yi dëkk bi itam nekk ci yeneen bërëb booba suñ war li may nettal boobu jamono neexiwut nii ñu mel na nag dëkk bi dafa raaf waaye booba suñ borom a ngi waajal mbër moo xam ni ñoo ngi koy dégg ca kawlax mu xëy taju tëju butigam bàyyee def lépp ñu ne ko looy def mu ni faj ajo alay sëñ ngee loo liggéey léegi mu ni faj ajo te boobu ma ngay jaay ak jënd ca jamono jooju la dem gaay ji soxna Aysatu Gaawaan Mbàkke di turandoo maam asu Gaawaan mais ñëw toog daane ko nag soxna Astou tey li ma la indi sër ci mooy wopp di fi waaye indi ma faj te keroog képp koo xam ne la ñoon na jug na ku tawatoon tawat yoo xam ne jàpp nga ne doo wér keroog jug nga mu ñëw ci dëkk bu daan ñëw ci dëkk bii dafa daan yenn ba ngoon rek mu dem yenn ba ngoon mu dem ba caang mu dem ni sëriñ moo taale géey mi fekk boobu ba nga tëngéej di fa yaxantu moom itam waa dëkk ba doyloo ko lool bëgg ko lool nga xam ne itam bëgg gi mu bëgg sëriñ alaaj sëriñ gi sëriñ alaaj sëriñ gi fekk fa ni ko damaa bëgg nga dem baral nekk ca dëkk ba mu bàyyi yitteem yëpp ñoo toog ci dëkk bi alay sëriñ ngay bëggoon ko lool alay sëriñ ngay dara ja jim amoon lépp bu ndékki daan jot dañ koy wooy fi mu dem sëñ moon ndékk ji bu añ daan jot dañ koy wooy fi mu ñëw fi añ bu ree daan jot noonu lay demee ngir fonkum fonkoon sëñ alay sëñ mortala daana wax ni mooy sama waajur lu bare bare ci man moom ko defal alay sëriñ ngay itam ñaar ñi yar ko mu nampee ci ñoom sëriñ Tuubaa ñaar ñoo xam ni kenn gën leen xam sëriñ Tuubaa muy sëñ moon alima gi sëñ Musaa alima gi moo ba tey ki déggatoo ko fenn sëñ Mor Alima Gueye nee na ma sëñ Moussa Alima Gueye nee na ma nàmpati sëñ Touba bëgg ko bëgg ko wér fees jël ak sëriñ Touba ñëw ci dëkk bi taal fi taal boo xam ni kenn mës a gis lu ni mel lu ne ma def ko fii ñu fekke jamono dafa toll foo xam ne yu bari dañu mel dañ koy fàtte léeg-léeg sa ngay wax nit alaaj sëñ gi man kenn dugg dugal naa son boo xam ni nit dani ma tey laay dugg dégg wax alaaj sëñ gi te ab taalibe la fii ci kër gi kon war na ñoo ñu xamu leen ji mu jooju mooy kan ku feesoon ci suñ suñ borom la bëggoon sëriñ Touba bëgg goo xam ne ba tey man mësaguma koo gis sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa jaral ko sëñ Mor Talla amoon rakk joo xam ni kenn amu ko rakk joo xam ne da nga naan ko ndox mu taw ku am ñëw na fii ni sëñ Mor nu nawet bi def sëñ Mor na ko nawet bi da baax na Saliou Gueye fi la ko fekk ana fi la ko fekk ñun ñëpp la ñu fekk sëñ Mor na ko ah nawet bi da baax na waaye daal daa gëj a taw mun ne ko balaa fajara nga doyalum ndox engagement boobu la jël balaa fajara nga doyalum ndox alal sëñ gi taxaw fii di bàgg ba keroog dañu wol ko ne dugg ci saal ñun ñëpp mënuñ na ñëw dugg ci salle taxaw di bàgg di dem ak a ñëw di dem ak ñëw di dem a ñëw ba caag taw ba sëwit commencé taw am ku dawee fii ñëw ci néeg bi daa ne gone ñu leen jàppale néeg sëñ Mor ba daa wale te mu waroon ñaanum ndox nga ñoo ñëw di wax sëñ bi ne ko ngañ demal ci liggéey ba keroog maam gi mii ñëw na ni ko dañoo bëggoon njaay dem wutal ñu gaas yi benn ci dëkk yi ndax amatuñ matt muñ tax taxawee ala si ngay téye loxo ya fudd da ah yare yéen ma ñaanoon ndox de ah, yéen ma ñaanoon ndox xoolal loolu def yéen ma moo tax léeg-léeg nga dégg ñu naan taw mu taw kenn mënu ko alaay sëñ gi fii la nekkoon da ko daan def lu sëriñ moo taala bëgg mu defal ko ko bëggoon ko lool lu ne mu def ko ci dëkk bii samp gàmm gii nga xam ne sëñ Omar ko daan def alaay sëñ gi ko liggéey fi liggéey bu wér tax léeg-léeg nga dégg ku naan naa daa bàyyi nangam nga nangam alaay sëñ lu mu bàyyi woon boobu am na wërsëg boobu dem na màkka daataa muy def loolu dem na màkk lépp am na ko mën na ko fa ñug tey itam alay sëriñ Gueye Moussa am jóge fi sa doom doon la fii ci barab sëriñ Omar bi mu génnee jamono doomam matiwu ko ndax ay gone lañu woon sëñ Mor Assa ba mu génnee jamono ay doomam ndax ay ndaw lañ woon alay sëriñ Gueye jóge fi bàyyi ñoom doomam ju mat sëkk muy suñu seexu naa moo ko Moussa am wax leen ma lool nag koo xam ne wàcc nga fi sa sa njaboot taxawal fi dara ñu mottali ko ci badar gii moo tax ñu war koo ñaanal bu baax sunu sag la ñun ñëpp lu mu amoon rek bëgg sëriñ Tuubaa moo ko may mm-hmm. akuk dogu sëriñ gelaw Gelongal nettali na koo xam ne moom ma nettali nii alay sëriñ gi ñëw na ci dëkk ba kër bi mu dikkee dafa wàcc oto ba di dox ak tànkam ñu ne ko alay sëriñ gi xanaa dangaa fàtte sa dàll yi ci biir mun déet fàttiwuma ko damaa bëgg dëgg yi nga xam ni ñoo daan jam njabootu sëriñ Tuubaa gi sëti dëgg yooyu laa bëgg ñu jam yaa gëni baay gëni na jaay def la yaay yaa fi baay wallahi lii lu wér la sax sëriñ bi yaa mat waay yaa gëni baay gëni na jaay def la yaay yaa fi baay wallahi wax ju wér la sax وبالنوبة بني ماتي وبالنوبة بني خماتي جباركي باي نوراماتي مي أم سيفا وخرنوي وبالنوبة بني ماتي وبالنوبة بني خماتي جباركي باي